jërëjëfati mbokk yi way ànd ak ñun seetaan ak a déglu mbégte ñu daal di dellu soit ak yéen ci seen cabinet bio indiwaat leneen loo leen miin loo leen xam fàttale li ñuy def rek mooy fàttali ko ngir ku ci nekk ci ñun xam ko borom bi lépp lu mu bind rek njariñ wa ca nekk dafa yaatu lool te lépp dafa jëm ci nit ci doomu aadama nit ki nag yenn saay moo am ay jafe-jafe ci wàllu seytaane wala yeneen xeet yi ni mel si boobaa del farataal di jëfandikoo meewu nag meewu nag saay boo xëyee suba balaa ngaa lekk dara nga ciy naan kaas incha allah soo ko dee farataal di def yàlla mën na la musal ci wàllu seytaane te soo nemmeekoo ne moom moo la jàpp soo koy farataal di ko def yàlla mën na laa dimbali ba nga mucc ci lool borom bi dañ koy dellu di ko sant gannaaw boobu ñu wàcc lay def yoo xam ne saa su ne rek luñ ca làmb lu ne mën na ñoo jariñ meew mii di meewu nag su dee da nga nemmeeku mbiru seytaane wala yeneen yi ni mel dee ko farataal di ko jël saay boo xëyee suba bala ngaa lekk dara saa